بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب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 دون الله أنت يلعب بلما عندهم فما كاد أم في كل تدمر ألفا ويا الحمد لله سنت الله بور بلما عندهم فما كاد أم في كل تدمر الحمد لله santal yàlla maanaam yaa way rabba bila qalwa rawatina asxaabahu alanan hatta sadaqamu fa ya ala allah man xaaral ya imana ila dara wag mar ay sanni nga jamra fanani nga muzdalifa tamim ma sa wa ya rabba ya nal khilafat

اسم اليوم رحماني والجاه وإلى الخلافة فجن بنت ويلا شيخ رواه من الرحمن والجاه يا شيخنا يا أحمد التيجاني شرتيجان ajaa binta maa ngi lay wayal sa soppe bi mawlaaya Ahmad Tijaani Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane cheikh dinaa la way ngir dundal kolloore way la ngir dundal ak mbëggeel way la ngir dàq kañaan way wayal ñi mënu la way ay cheikh Tidiane yaa raaxilan mutasabiha rubbaani cheikh Tidiane نحو الجنان لروح وريحان شيخ أدي الألوكة من أسير علاقة قاسي الهوى جسم الدتر أزمائي أدي البيان لأهلها متصايفا للوافدين وجود السكان شيخ تجان لولا مآدي الحكيم إلينا عرفوا بما أحوي بهذا الشان لا تقصرن توسلا وتذرعا وترققا بالعين والتيجان شرطيان سلمى وسره زيادة بتقرب كزوي الغرامة سائق الأوطان بحر تموج قعر ويفيد من إذن الحسين لباي أقوال شتجار وتساسات الدواء وشعاء وتعم بالأقطار والبلدان شتجار كم شاهدت عين الحقيقة عينها وتكشفت عن فرعي نوران هذا سليل محمد ذا سالم حقا أبو وقدوة الأزمان شطجان هو قدوة هو رغبة هو وحدة هو عمدة هو تحفة الإخوان السلام عليكم ورحمة الله sama Moodu nii lay mën a mel sapate maam amare ñeewa ca saalum sang bi noobal nga sama Moodu nii ngay mel ay maamam yëpp ci tarixa bi la ñu nekk. ay maamam ci tarixa bi la nekk. tey jii moom mooy xalifa baayam. tey jii moom mooy xalifa baayam. yor daara alquran. yor mokkal alquran. mokkal alquran. ci kër Serigne Hadi Touré. jàngee ci Aziz Touré moo ko jàngal ba mu mokkal. Aziz Touré moo ko jàngal alquran ba mu mokkal. sama doom bi baay moom laa ko jox moo ko jàngal alxuraan. sëriñ bi nee na doomam bi mu tuddee xalifa bi sëriñ Mouhamadul Munir moom la ko jox mu koy jàngal alxuraan. li ñu ànd Makka kenn mënu ko li ñu ànd dem Makka kenn xamul lu mu toll. saa yu demaan Makka. bu ñu demaan Makka. ba arafa jot. ba arafa jot. xatmul quraan quraan bi. moom lañ koy jox. moom mii lañ ko daan jox. mu jàng ko njàngin bu rafet. te du mu jàng njàngin bu rafet te du laal ñu demee Muna. bu ñu demee Muna. ca aima ya ca aima lay bokk ca imaam ya. man nag lépp lu jëm ci masala diini ya ci wàllu fiq bi nga xamante ne moom la aj di kooku man lañ koy laaj. moom sëñ Ahmed nag lépp lu jëm ci masala diine lu jëm ci aj bi ci wàllu fiq ak tettal ja ca war yëpp moom nii lañ koy laaj mu koy leeral. mu bokk koog moom. mu bokk yeneen i mbokki taalibe. ak yeneen i mbokki taalibe. muy ku baax nag. ku xam njigéen xam nga ko. ku xam njigéen xam xam sëñ Ahmed xam nga ko. fu mu su sëriñ Ahmed nekk tamit mu ngi ci wetam. ne mu koy présenté sëriñ bi Ibrahima Ba bu baax. Cheikh Ibrahima Ba mii tamit. Cerno. Cerno. booy ut nit ku baax ba tase ak moom doo ko jéggi الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نستعين اهدنا الصراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين يا رب العالمين اللهم لا تتبعنا في مقام آمين ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته ورددته ولا خائفا إلا أمنته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته wala uryanan illa kasawta wala muhriman illa atayta wala qurbatan illa nafasta wala daynan illa qadayta wala asiran illa yasarta wala mayitan illa arhamta wala dallan illa hadayta ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها لنا على قضائها ويسرتها بك يا أرحم الراحمين اللهم احسن حالنا وعقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أن يجعلنا وإياكم من الذين ضمن لهم أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا وإياكم من خاصة أحبائه متمسكين بسنته wa zakirina tariqata hafidihi wa muridihi mawlana sabil abbas ahmad tijani radiallahu taala la tarikina wala matrukina wala maslubina wala mabudina wala maprudina fi hadihi ddar wa tilka ddari bimahdi lfadli waljudi birahmatika ya arhamar rahimin allahuma ya man tulatif bilutfihi jamia almawjudat waskana mahluqina tahta lutfih ultuf bina jamia hawaiji diniyatu wa dunyawiyatu wal uxrawiyatu wal barzaxiyatu yaa rabbi naka laa kulli shay'in qadir wa bil ijaabati jadir wa ma dalika ala allahi bi aziz bi xaqi allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi dal azim adada sufufi almalaikati wa tasbixihim wa tamjidihim wa taxlilihim yowma xalaqta dunya ila yowmi alqiyama salatan tamla'u biha al adalu wal abadiyu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun wa salaamun wa salaamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki islam gisee fii ñu taxaw tey ci si bi ñu ñëw ci ndana gi nga xam ne mooy soxna Adja Ndeye Bintou Sy ki nga xam ne moom la ñuy wax madame Ndiéguène di soxna ci ki nga xam ne mooy Ahmed Sall Ndiéguène kon Thiès yëpp defe naa ni tey daje nañ fi ci baaxu ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Sall Diégane waaye ci baaxu ki nga xam ne mooy Adja Bintou Pouy bu leen di ñaanal ñu ñaanale woon jaaj yëpp ñu def ci bisimilah rahmaani yàlla def ko waaye mu ñëw tey di saabal teg ñi nga xam ni ñooy ay mbokkam waaye ay xaritam waaye ay jege ñaale xaar waaye nag ñu koy ñaanal moom it yàlla na def téeméeri at yi tàmbali ren waaye ñu ñaan yéen ñi nga xam ni yéen a ñuy bàyyi xel te di ñu seetaan suñuy demaat Màkka ëllëg déwén yàlla nañ bu àndee ñun ñëpp waaye dem ci ñëw ci sabo dem ci bisimilah ñëw ci alhamdulilah rabil alamin kon damay ànd ak ki nga xam ni mooy sama caméraman du jour muy maam Alaaji moo fi jóge bi nga xam moom la nekkee ak équipe bu RTT TV yëpp ñëw ci biir gis nga xam ne li nga moom la ñu teeroo ki nga xam ne mooy Adja Ndeye Bintou Ndiéguène waaye di ko ñaanal bu baax a baax madame Ndiéguène yàlla na yàlla guddal fanam yokk ko wér euh, sàmm ko aar waaye booy bàyyi ko borom këram ba nga xam ne yàlla defal na leen xéwal sàmm leen aar leen kon dañuy def rek nga topp ma ci biir ñu ànd defal lu ndaw ñi nga xam ne man li nekk ci biir.

صلوا على المصطفى كلما سمع صلوا على المصطفى ما شاء الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد والتقوى واتقوا يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله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 ndax ndeyam ak ndijaayam lépp ay taalibe alaaji mën jigéen lañ kon ñun dañoo nekk rek ca wattit wa taalibe googu moo jiitu ci moom ba tax mu tàbbi ci man loolu mu tax nag ma tàbbi ci man insha allahu ci kanam tuuti maay jawal fii ba sëriñ aspect ma ci wala mbay faal wala keneen ak keneen kon ko defee nag sama doom ji doon jàng alxuraan baaba mii kii daf ma séddoo bàyyi ma ko jur mu baasharatan waaye maay bàyyam moo sama doom sëñ mu ñoo nekkoon ca daara ja ndax sëñ mu niiru kii laa ko jox mu di ko jàngal alxuraan tey lu mu mën cerno mii la baaba mii doon sama doon séddoo ma bàyyi yitteem yépp ñëw ànd ak baayam kon bu jàngee lii nag ci bis baayam maa koy ñaanal yàlla yàlla la yàlla dolli wér dolli la gudd fan faj sa aajo Cheikh Tidiane kontaan nañu bu baax yaag Thierno yëpp ndax maag yéen la màkk yoon bari na bari na Thierno mii lu nekk séq nañ ko te kër gi xam nañu loolu tey mu bàyyi yitteem yëpp ñëw yendu ak man kontaan naa bu baax xam naa itam ngant yi nga xam ne mu ngi leen di xaar ndax wax nañu ci loolu war waral ma jël kàddu gi nii pour bàyyi rek tabaarakallaahu bu leen bëggee rocc ko rek ngeen yeewu ko rocc ko su ko defee nag ah tabaarakallaahu sëñ Omar duggal foofu tuuti nag ñuy door dugg ci leneen di kontaan ci jigéen ñi di di ko sant moom itam suñu soxna la waaye ñu ngi koy sant di ko gërëm tabaarakallaahu ndax euh, comportement bu jigéen ju baax di war a comporté war a def na def na ko amul ay bintu di nitu ay man sonolu ma ci biir sonolu ma ci biti yàlla xam na ko dina toppatoo sama biir dina toppatoo sama ay yére xëccoowul ak man dara itam lu ma am jox ko lu ma ñàkkit mu muñ lu ma am yéene na ma ko bëggal na ma teraanga aussi fonk na sama baay fonk na sama ndey fonk na samay bàjjan fonk na samay frère alaaj ba dem yi lu ko tax a jox xam nga ni bu jógee kii am na lu tax léppam itam ay jooy rek la koy mottalee maa ngi koy wax waaw dana toog di xalaat pour man pour lu ma jëme kanam yéene na ma teraanga bu nekk du damm bantit bant bant te waxuma ko magam yaa ngi fi ñi mu bokkale ngi fi ay doom di jaay waaye ñu ñëpp gannaaw bi ñu yàlla boolee amul lu muy def lu dul mën la cee jiital mën la cee mujjee kon nag tey ji bisam bi ku ci ñëw bu yaakaar ne moom nga dikkal mën nga dikkal te man ku ma dikkal dikkal nga sëñ Muniru ku dikkal sëñ Muniru dikkal nga alaaji mën njëgën ku dikkal Alaaji Ahmad Ndiéguène dikkal nga tabaarakal Alaaji Ahmad Baro Alaaji Ahmad Baro nag ku ko dikkal rek dikkal nga Cheikh Omar te Cheikh Omar ku ko dikkal dikkal yonti yàlla Muhammad ak Cheikh Tidiane Chérif kon yàlla yàlla faj seen ajo faj aajo ñu fi teew si ñëpp kii suma bàjjan la moo bokk ak Serigne Mouniru mi ñu jur ndey ak baay démb bàjjan ndey Faatu Ndiéguène ñëw na fi moo sëñ Mouniru ak soxna si ñoo bokk ndey ak baay ñëw ci kër gi. ànd ak njabootam ki doomam ñaanal ko sant ko gërëm ko sama tante aw Samb mu ngi fi sama bàjjen Binta Kayar mu ngi fi sama cousine yëpp yëpp yëpp ñu ngi fi dañoo bari ñi sant Seck ñi sant Gassama ñëpp ngi ci biir ñi sant Guèye kenn desul sama sœurs yi ñoom ñëpp ngi fi ñi ñu bokkal tabaarakallaahu sëñ Muniru Njëgal sama frère sama kilifa yaa ngi nii kii moo ma mag ci gannaawam laa topp kii moo topp ci sëriñ Bada sii sa ñëw na fi barki démb duudoo ngi ñëw ci yoon wi incha allahu Ahmad Fall euh, euh, Malick Njëgën ngi fii ci biir tabaraka sama jaam yëpp maam baa ngi nii sama xaritu bopp yi ah ñoom El Hadj Modou Diop Gilles le Grand ay Moussa ñoom ñëpp a ngi Omar la waaw maam Mor ñëpp kenn desul Serigne As léegi la ma woo ne mu ngi ci yoon wi. kon nag tey jii ku fi teew rek ay xaritu boppam itam ñu ngi fi gis nga ña la ñu gis ñii ñu ngi noonu club bi la nit ñu baax lañu nit ñu yiw lañu kon yàlla yàlla faj seen aajo ay doomu nijaayam itam. ci wàllu góor ak jigéen ñëpp maa ngi leen di sant leen gërëm di sant itam xadi nga xam ne mooy lépp ci biir activité xadi mooy diye ñang ma ne xadi tabaarakallaahu moom mooy sama goro ci kër gi sama mag la mee sama goro ndax saadeer si ñaan mi ko jur taaliba alaaja man njëgal la mattum gàmm mi nga xam ne sama maam alaaja man baro ak alaaja man njëgal daan nañ ko gàmm ci gàmm gi bàyyi saadeer si ñaan moo ko daan indi xaritu seen kon tabaarakallaahu taxawaay boobu la am ci ñun tey jii sa yaay bu doon dund li xadi man ci man man ko ci yow Adja mënu ko kon nag maa ngi koy ñaanal yàlla di ko sant di ko gërëm damay bañ a taataar ci yëf yi te ko am gan gan gu jóge ci. أما بعد أيها المشاهدون الكرام مستمعنا الأكارم نحييكم جميعا بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen a yey de kay jàmm du doy sama maam daan na ko wax ci laaja man njegéen dafa wax ni jàmm du doy maam foo teg loolu mu ne aljana mooy ay jeex na dañoo màggat lu bon bu la xëy xewu fa kenn du fa tuur ndox xewu fa kenn du fa dem wanag xewu fa aljana asamaan du la tiim xewu fa suuf du la tiim xewu doo feebar doo dee nag yàlla nañ ci yàlla dugal waaye ndeke waa aljanna bu ñu dajee waxtaan ba pare dañuy ñaanalante jàmm waaw foo ko teg mu ne daawaahum fiha subhanaka allahumma wa taxiyatuhum fiha salaam salaam daawaahum fiha subhanaka allahumma wa taxiyatuhum fiha salaamu wa axiru daawaahum an alhamdulilahi rabbil alamin waaw foofu boo fa demee nga xam ne yooyu yëpp xewul fa loo bëgg a lekk lekk plat yëpp fa nekk te yëpp loo lekk mu jeex waaw alba soo ko nammee da ngay dangay ngay da ngay jàkkaarloo ne bëgg naa koo gis rek écran géant yi ne jay ngeen nuyuwante waaye bu ñu dajee waxtaan ci suñu ba noppi yàlla nañ ci yàlla boole dañuy ñaanalante jàmm kon jàmm nag bu doy sama maam Alaaji ma ñu déggee nee na bopp bu tuuti te am jàmm. moo gën bopp bu toll ni Cees dafa mu toll di metti mu yàlla defal jàmm amiin Adja Maguette ñu ngi lay la ziar yaa fi alaaja ma njëgam puisque yaay doomam dafa bàyyi demul bu fa doom demee bàyyi dem na fa fu mag demul bu fa rakk demee mag dem na fa yaay fii Cheikh Hadji Mounir xalifa bi yow yaay alaaja ma njëgam wala jur yaay sëtu alaaji Mat Baro te isa wasalta ila darixil mustafa wan nafsu qad balagat hunaka manaha baladun bihi kullul fadaili jumiat tilka al madinatu la aqulu siwaha baba li tibi mustafa wa li tibiha rabbul anami bi taybati sammaha am na ñoo xam dañuy kuróo jotaay dañoo xam dañuy kuróo jotaay ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn waay joo xam ne ni dafa faatu yonent bi ñu ne nañ ko sang ñu sang ko mu ne nañ ko sang ñu sang ko mu taxaw fas yéene ko jullee moom rasulilaay bala muy kàbbar rek jibril na lay cëpp ci kanamam ne ko sa borom na teyal ci waa ji bu ko jullee mu ne ko lu xew mu ne ko puisque ñu nekk ci sàppe yi di ay mbokkam li ñuy wax ah utanaak mbaax kon na nga teey bu tax dañuy wax ni nit bu faatoo lu ngeen xam ci moom lu baax tudd leen ko waaye ngeen xam ci moom ci fa safaan nag hee nëbb leen ko baa ngeen ne mu yonent bi ne tekk nees tuuti rek bàyyi Babacar Seydina Aboubacar ni Siddiq ñu gis ko ndeysaan muy ñukki ñukki ñukki ñukki mooy trotté trotté waaw moo ngee ñukki ñukki di fekk si ndeysaan ñëw na ba baa jullee gu leen baa jullee gu leen ndax ma fekkee yiw yi yonent bi ne ko loo xam ci ki tëdd mu ne ko mbaax laa xam ci moom mu ne ko foo ko teg kii maa ngi koy bëgg a jullee sama borom yónni Jibril ne naa tey ndax li ñuy wax ci moom dul waax ma taxaw nga ñëw ni baa jullee gu leen ngir nga fekke yiw yi foo ko teg mu ne ko tegu xaw ma ci waa ji dara tegu ma ko fenn yow yonti yàlla Muhammad lu dul sa présence yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow foo taxaw bu lëndamee dina leer yow yonent bi yow koo taxaw bu bonoon dina baax yow rasulillahi yow foo taxaw bu lëndëmee dina leer yow rasulillahi sallallahu moo tax ma xam ne waa ji a ju baaxa nees tuuti yàlla yabal jibril alayhi salaatu wasalaam mu ñëw ci yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko julleel waa ji mu dugg aljanna kon Adja Maguette bu fi teewee teewal na ñooñu ñëpp teewal na sëñ Muniru ku ko xoolee sëñ Muniru gis sëñ Muniru ku ko xoolee al imam da ko di gisee. ku ko xool mooy suma bàjjan moo a yar moo ma def nii di nga di nga ma gis njëgal Moussa yàlla nga fi yàgg jërëjëf Adja Xadim maa ngi koy sant di ko gërëm Xadim mii Xadim ñing ñoo dëkk jërëjëf tuuti moom mii moo dëkk ci suuf ñu dëkk ci kaw waaye dëkkandoo bu rafetal la te yonent bi sallallahu nee na sa dëkkandoo na rafetal ci moom Jibril daan na wàcc ci yonent bi danga ko dénk ci dëkkandoo ba mu yaakaar ni moom bu faatoo dëkkandoo dina ko doon jërëjëf Adja ñu ngi kontaan yaa maye ngoog kii moom mooy sama ndey waaw borom Tuuba xoolal ma lool l'islam ne soo amee garabu mango fii branche yi nekk ci kër awaja mii yow mi moom daat arrosé sa garab xob ya fay dal moom mii la ko bale waaye bépp meññeent boo xam ne kër awa jala ne loo moom moom sa dàtt xamal ni moomuloo ko man nga joojee awaa moom moo ko njabootam yéen a may dégg jërëjëf ñii tamit ci délégation bi lañ de moo doon defar ndaw si ñaw yi tamit moo fa jaar luulee ngoog ah, waaw man war ngaa jaar ci man de fii graay bañ tëqtal ko waaw jërëjëf Mbaye jërëjëf jërëjëf Mbaye dégg mu wàcc Medina ut ñu mu bokkal néeg moom Adja ñu yóbbu la nag ci li nga xam ne moom la ñu tuddee kullu ziar ma gaawal ko gars yi ah, kullu ziar kullu ziar mooy da ngay lay yóbbu ci ay amakin al muqaddasa yóbbu nañ la waxul yóbbu nañ la masjidu xiblatayni yóbbu nañ la xubaa yóbbu nañ la baqiya wala yóbbu nañ la xandaq les fossés ah, am na loo fay jàngee ba ñu la yóbbee Uhud wan nañ la fi nga xam ne jullit yi fa leen tëdd te li ko def mooy xare bu rëy diggante ñeefar yi ak jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam stratégie de guerre bu mag la woon daal di ne gars yi yéen a ngi dem di guerre ji waaye li ngeen def li ngeen xam daal moo di ñi nga xam ne ay tunnel jullit li ñu bu ñu wàcc montagne bii position bii bu leen ci wàcc ak lu mel ne mu ngi leen di àddu parce que xam ne ni jërëjëf jaxate ajakine mooy soxna xalifa bi nag sëriñ Cheikh muy ziar bu baax yonent bi ne leen bu leen wàcc puisque xam na lu tax yonent yi njëkk ya ku ci nekk soo xeexaan ak ay yéefar boo leen gañee yi da nga koy dajale yóbbu ko ci gannaaw montagne bi yàlla yebal safara mu lakk ko waaye sunu sang bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu ñëwee yàlla ne ko hee yow rasulillahi may naa la koo jamono la teel ko duma oo yaa jamaa jëlal lew na la doom moo tax premier round rek gars yi fët jullit yi dóor dóor gaañ yéefar yu tëdd ñenn ñi daw dem téeréer dalit yi wàcc nag ñëw tàmbali di for takkaay yaa ngi demee noonu gars yi wër leen doon wax yéeg ca kaw tiim leen di leen fit di leen jam pare ñu rey Hamza jàmbaa jooju leen xottu xol bi Hamza jël ko yooyu ko buus ko yóbbu ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngal leen la bu nga demee ñaanal nga leen taxaw nga ca grillage ba xool leen aja ñu bëree gaa yi yóbbu la fam xibla tey ni jàkka ñoo xam ne ñaari xibla la am xibla ga nga duggee mooy xibla gu njëkk gi alaksa tey beneen xibla gi nag mooy xibla gi nga moo féete Makka xibla gu njëkk gi nag foofu nga daan taxawee di fa di fa jullee ay am ba dëkk la wàcc jërëjëf sëñ bi ziar nañu waaw xoolal ma loolu nga julli fa ñaari rakka fatiha qul yaa kaafiruuna fatiha ixlaas dafa am doole nga julli fa ñu yóbbu la xubaa xale yi yéen ngi wàcc oobu nañ la xubaa ci jàkka ji nga xam ne moo njëkk ci lislaam jàkka joojee tabaarakallaahu yonent bi nee na képp ko jullee ñaar rakka da ngaa mel ni da ngaa omra yonent bi ay altine ak samedi da ñëw léeg-léeg mu war dox bu julli ñaar rakka delloo ay waay ñaari ñaari rakk yoo xam boo de defee ci jàkka mel na nga da ngaa umra mooy aj bu ay waay nag foofu la am de Xuba ajaa dem na fa tapi xonq ya gis nga ko ah ku bon ba gis nga ko gis nga boobu jàkka rek yonent bi mu jógee Màkka mu dàq ko Màkka génn ko Màkka muy ñëw Medinatu Munawwar foofu la dal wa min samaniyati ayaami jaaba ala tilka al لم يدعم ولم ينم أقام عند الخبا دالا وأسس ما قد كان أسس في التقوى مع الهدم يوم العروبة جل المدر تدركه صلاتها وأتاها غير مقتتل لدى بني سالم العالين في مئة يا فوزه عند الراء نور نائي وادهم وادي جمالي كلها ne ko du guddee waaw ñaari ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam tiiñ ko ci xabroom boobu wal nafsu qad balagat hunaaka mannaha bépp jullit bi yàlla ndax baladul bihi kullul fadaa'ili jami'an soo bu baax mu nga fa ba da ngay dem rek ci sa otel boo génnee dem julli ji sang nga sa kër sa armal bi nga demee biiru aali julli ñaari raka fatiha li nga xam ne mooy sa aj na xiraan am na tamato na ifraat nga sama jaabi ah, ak sëñ Muniru bokk ndey baay ndeyam moo topp ci sëñ Muniru lenqe waaw sëñ Muniru magam Adja Xadi Njëgën ay doomam a ngi nee topp ajaa xadee mag ñu xam ngeen ko aji yaasin itam doomam mu ngi fi ndax asu jaxaw ngi fi waaw bu nga julee ñaari rakka yéene sa ifraat labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk laa sharika laka labbayk allah اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لمي فيري موي لبيك وينا لا ورسول العالمين xale bi nee na kooku Adja nga demoon ziyaara ji mooy yonent bi nga xamante bi ne alam bi yëpp moo ci man moom yonent bi képp koo xam ne nii bu ëllëgee bëgg ngaa dugg aljana di nga topp kondam kondam it gannaaw yonent yàlla Muhammad ñi ñu dee ñu xam li xew ak ñi ñu dee ñu xam li xew ba pare ñu yónni leen ñoom ñëpp rasulullahi mooy seen sang eh yàlla dafa jël ay turu boppam tudde ko yonent bi laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufur rahim jërëjëf dafa jël ay turam tudde ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam raufur rahim safiul muslimin tudde boppam tabarakallahu sëriñ As tabarakallahu Njaay tudde boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam shafi'un bil muslimin laqad jaakum rasul yàlla ko wax ne yonent bi raouf rahim la raouf bil muminin malaaka yi ñu constaté ne loolu xaasa lillahi rabbil la sharika lahu fi tilka al asma tur yi daal ko moom kenn waru koo tudde benn mbindeef waaye bi nga xamante bii ne nii dàq nañ ko màkk mu dem waa kër ndeyam ci taif ñu baraawul ko xaañ ko sonal ko yàlla yamal soixante-dix mille malaaka yoo xam ne ñëw nañu ay tireur d'élite ak ñoo xamante bi ne explosion ci la ñu aay ñu ñëw na yonent bi rek ñu boole taif bi yëpp boole ko ñu dee mu ne ko déedéet allahumma ixfir li qawmi fa innahum laa yaalamuun jibril la ko ah anta gafuur rahim kama samaka rabbuka fi sama shafi'un lil mujrimin li la yàlla tudde woon ci turam yi wane nga ko jékku nga leen war leen mën a duma jéggal leen anta xafur rahim kama samaaka rabbuka fi sama shafi'un lil mujrimin yawmal qiyaama dañuy wax ni képp ku am bëgg nga say bàkkaar set del jul ci yonent bi raufun lil muminin eh yërmande yàlla tigi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shafi'un lil mujrimin déggoo li ma la wax doo dem nag wax naa la ne yabuloo ma de nga ne lan ya Macky. huwa alladi ursila kaafatan ilal xalqi ajmain. nee na fii ñuy wax di ko joobe di njool màkk moom la ñu yónni yónni ko ci temps ci moment ci espace yónni ko ci aalam bi yëpp moom rasulaay ak ak jinne. kama qaala allahu subhanahu wa taala fi kitabi mubin. xale bi nee na comme ko yàlla waxee ci mbir alquraanu karim. maa kaana muhammadun. maa kaana nekkul muhammadun yonent bi jërëjëf. Eh, ci yéen. rasulallah eh kii mooy ndawal yàlla walakin eh li fi nekk day habiballah fii moom la yàlla sopp moom yonent li fi nekk day boo bëggee gis leeru yonent yàlla Muhammad kooko yonent bi lan moo fi ne bu fekkee da ngaa bëgg lamp bu leer rasulillah mooy lamp bi lan moo fi ne mu ne bu fekkee ne ni nguuru yàlla la kooku rasulillah sallallahu alayhi wasallam lu fi nekk nag ci kaw suuf mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ah Omar Diaw nee naa la mooy caabi yàlla ci kaw suuf. kii mooy suma jigéen. tabaarakallaahu di Ajaa Faat Sise. mooy leer yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kii moom ku ko xam xam nga ko man muy Alaaji Souleymane di chef courant di mbokk. di ki nga xamante bi ne mooy goro Adja Khady ma leen di suma xarit moom itam maa ngi koy nuyu di ko ziara. walakin sabullah. tey dama ne képp koo xam ne dañu lay daggal du ñu la daggal ndax waa perception ñu ngi nii toog am na te ngi nii tey du ñu daggal kenn dara. walakin. leeru yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. walakin. damaa bëgg nga wax ma lan la seen tubaab wax yow ci yàlla Muhammad. da ngeen di nelaw wala lu xew raaya bi ذكرناه الذي على المجاهدين wayu yambar nag waxuma ci dara wayu yambar waxuma ci dara raaya bi nga may laalal rasul hamidun hamidun wa muhammadun demal rasulun xamiidun aabidun muhammadun nabiyun saraaka gis na ñi mën a tagg yonent bi ñëpp tagg nañ yonent bi waaye bu mu yeggee ci maam Serigne Touba radiyallahu anhu dafa wax ni kaabun wa xasaanun wal busri qad bara'u wa kulluhum shi'ruhu nurun wa asrar raama alwara nayla fadlil musri'ina lahu wal fadlu 'inda rasulillahi gharar waaw kon képp ku bëgg dara foog nga ne jaboot cere jaboot boo ci bëggee foog nga ne doom ji yàngu kon Adja tabaarakallaahu ñu ngi lay ñaanal yàlla kaala gi ñaanuma mu ràpp waaye bala muy ràppit yoon yu bari na ci tegu. yàlla nga wàllit ñii nga xam ne say xarit lañ te àndoon yow képp ku demul woon it yàlla la yàlla papa jërëjëf Touré jërëjëf Njaay Njaay Njaay may sa Njaay ah dégg nga nga gis ni alxajju arafa moo tax boo feebaree ba ñor xom xom xom dañ lay ci ambulance yi yóbbu la arafa nga toog boo ñëwee arafa yendu fa da ngay wàññi say julli tisbaar takkusaan moom ngay boole tisbaar ak takkusaan jërëjëf Njaay tabaarakallaahu boo ñëwee nag après moom laa leen joxaat nga li seen fan dolli seen wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënumaa continuer di wax puisque xam naa ni sama xol tooy na yéene naa leen lu nekk ci àddina bu fekkoonte bii ne dañuy sant ak gërëm sant naa leen gërëm naa leen yàlla na yàlla jàppale leen incha allah kontaan naa bu baax waaw. jëloo xaalisam yàqal ko ko du ute woo ko ñeenteel. dangaa jël <laughs> yow ma reetaan loo danga koo jàppale te yàlla tax li xadi wax rek lii bu fi taxawee yow la bintu nekk sa jigéen la mat nga ko mag mat nga ko borom kër mat nga ko bàyyi ca lu baax li ngay wax ci moom toujours yaa ngi koy wax su bintu taxaw sagal nga ko sagal nga ñu bu fa nekkee bu fa nekkul yaa ngi koy waxal lu baax ca li nga koy wax jayoo ko nag ndax bintu mii suñu rakk la waaye yar rek lañu xam ci moom bintu lu ko naqareeg lu ko neex ay jooy rek la koy faje nii mu la mel dañ koy ñaanal yàlla kaalaam gi yàlla na ko ràppal yàlla nga dellu delluwaat ay yoon yow képp ku la ko yéene nag lii may wax ci sama xol bi laa ko tibbe yàlla na la yàlla delloo màkka ay yoon yoon yoon yoon sa benn bii la yàlla jox yàlla ko yàlla soppi fukk ba mu la li nga doon ci sama bàjjen yàlla ca yàllaa ngi lay fay nag macha allah laaw la cat lii teeñ bi rek yan baa ngi ñëw yàlla na la yàlla jàppale. vie ñoo lay gërëm di la sant. du wàññi ci sa dara. ñun yee dañ lay ñaanal yàlla wér ak gudd fan di la ñaanal fañ déggoon sa maam yàlla nañ fa dégg fu ko raw ci barke sallallahu alayhi wa ñuy wax ne ah dañuy wax ne nit boo xamee ci moom as buñ koy waxal lu baaxam soo ca waxul buy lim ay doonam na la sa boole te tey nag bisu wax la ndax nit amul lu dul bisam te bis bii tey nit amul bis bu ko gën a rëy bis bu ne bis la waaye gan bu jóge ca sallallahu alayhi wa kenn amul bis bu ko gën rey rëy nag vie sa wax ji ci bintu yàgg nga koo wax bu doon lu ñuy wax ni olof di wax booy na suñuy nopp yow di nga ko wax bu bintu teewee di nga ko wax ginnaaw bintu di nga ko wax fu ne kon dañ lay ñaanal yàlla yàlla lafal la cat te bàyyi laa say soxna fa nga bëgg a yegg ak ñoom yaa ko xam yàlla na la fa yàlla yeggale ba may la lu kawe sa njoot jërëjëf rek lañ lay wax di ñaan yàlla lafal la cat ak say soxna sàmm la barkeel la barkeel sa njaboot bintu nag bu ma doon wax ci moom fii ba suba duñu du ma bàyyi ndax li ma xam ci moom dañoo juddoondoo yaroondoo bintu benn at laa ko mage ñu màggandoo ci kër lu gën a jafe ci àdduna ay xale yu jigéen yu màggandoo ci kër te kenn mësule na a àtte mi ngi nii toog ñi ñu yara ngi nii toog ñi ñu doon ànd lañu nii kenn mësuma àtteeg bintu dëkk lañu def dama ne leen bintu dem Italie moo ma tàqaleeg moom man ma sëy loolu la yàlla dogal te yàlla nañ yàgg ànd yàlla buñ gaaw a tàqalikoo kuy sa kaala gi dina ràpp di nga jëli yeneen kaala gis nga sama bàjjan lii nga ko suturaale ci këram gi di nga ko muurali kaalaam mu ñëw ndax bintu fii kat biñ fi daan ñëw bâtiment ban moo fi nekkoon suñu mosaan a ñëw raas mango ba pare di ñibbi kër ga bu sam bàjjen ne kay sama bâtiment bii kañ lay jag boobu amuñu maag bintu li xale yi naan lu suukar baraada amuñu ko ema yi wala toccamikaay buñ ñu ko jëndalul duñ ko am mais daka daan wax maam muñal rek la ngaamu ci ay mbaggam bis bu ma amee dinaa la ko tabaxal ñun ñëpp ñuy ree tey loola la ko yàlla fay dama ne ko yàlla dafa fay yéene ji ba pare doo a fay jëf ji ndax yéene ji yàlla fay na la ko doog laa jox loo ko mottalee ndax mënoon na koo am tam ne fii maa ñëpp a ko bokk dem jëndi feneen tabax ko su ko neexoon def ko bu ëllëgee lu mu am fii da koy am da koy moom mais dafa xam ne fii fii la source am fii la war a defar mu defar ko ba mu mel ni mu war a mel nag ñu lay sant nag ni nga sagale sam bàjjan yàlla na ko fekk fu mu tëdd waaye yàlla na la yàlla suturaal li nday tuuti wax sa benn bii bintu yàlla na gën fukk yàlla nga dund ba damu ci moom Amina yàlla na la muur kaala màkk loo dund rek doyul wér ak gudd fan mm. rek lañ lay ñaanal te yàlla bàyyi la ak suñu allaaji bu ñàkkul ki ñaan bii di sant mbokk yëpp nag di sant dëkkandoo yi di sant xarit yi di sant ñëpp sant gi moom am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem ndaxte nag mbokk li ñuy wax rek kenn day wax waxaaleel ñëpp baat bi ma wax kenn fi jógoon tey loolu lay wax ñoom ñëpp a ngi nii ci ginnaaw ku jógoon loolu lay wax dañuy santaat yàlla bu baax bi ñu yàlla boole yàlla jox ñu mbokk goo nga xam nag amul soxorante amul iñaanante amul dara ñëpp benn lañu ñëpp a bokk ndey ak baay ñun dama ne ñun ak suñuy jabari càmmiñ ak suñuy cousine benn lañu li ñuy wax suñuy cousine la ñuy wax suñuy jabari càmmiñ moom la ñu seq ak suñuy xaritam ñëpp ñuy ñaan yàlla yàlla lafal ñu cat te bàyyi ñu suñu ànd bi yàlla bu ci seytaane xaj ba ñu dund ba suñuy sëtaat di ko ànd jërë ngeen jëf merci beaucoup. ci nii ñoo màggandoo. bi ñuy dala ànd quatre ans la ñu am ba léegi léegi yaakaar naa ni ëppale nañu cinquante ans di dem donc mu nekk doomu soxna ñun tamit ñu nekk doomu soxna ñu dëkk ñun ñu sant Wàdd ak Lóyeen euh, papaam mooy suñu wasila mais di suñu bàyyi mais sëñ bi damay wax wóor na soxnaam si soxna Marème wóor na ko moom lu muy dugg danañu wax lu muy def danañu wax ñu profitoo tamit gërëm soxnaam si la première daam teg ci deuxième ba troisième dame parce que ñun ñëpp loolu yëpp ñoo ko dox ñoo ko fekke moom baaxaayam moom mii bi soxna bi sëñ bi di war a dolli sama kër lañ leen invité reer ñu reer ba pare sëñ bi na ma ah damay dolli ba nen ma ne ko yaay booy yàq reer bi de mu ne ma soxna si dama ko indi pour wax ko ko sëñ damay dolli ba ren ma wax ak moom tey yàlla def jàmm. am si di soxna Binta mii moom ak sama goro bële ñoo nekk li ñuy wax ci sama goro bële soxna si moo baax moo baax parce que bi ñuy wut fii sama goro bi daf moo woon ne ma ah dégg naa ko dafa ñu bëgg sa soxna moo ko moom moo woo Cheikh mii wax ko man na mel ni caabi yaa ngi si seen li loxo kon boobu ba tey ñoo ngi dëkk mais seen Cheikh mii lu ko ni defal mérito na ko ci baaxaayam taxawaay bi ñuy daal taxaw ci kanamam ñun rarement la ñuy wax sax ci micro mais moom mii dafa baax du gàntal dara nit taxaw ci njëgëneen laa wax ci njëgëneen ku taxaw loo xew la moo ca man ci biir ak ci ci sa disponibilité am kon sëñ bi ñoo ngi lay ñaanal si yàlla defal ko jàmm suñu première dame bi rek déwén incha allah bu soobee da nga dem màkkam loolu moom ñun ñëpp waxin nañ ko bu ñuy jaay sax suñu bopp di ko miraas da nga dem incha allah. loolu moom ñoo la ko wax moom. Mm. ñun ngeen fii daan nga fi lii yëpp nag ñëwoon si waa ji boo ko fitnaaloon comme ni nga ko woxee du tal bay wan one two three. Ah. kon boog yàlla yàlla def jàmm déwén moom la nga teel a ñàkk moom nañ ko waslu incha allah élage bi laal ñu introduire seen barab parce que seen barab yi dafa war a dem. billahi Adja Binta Kayaar wax na ko de muy suñu bàjjen Adja Maymuna Saar nit da koo gënu. nit da koo gënul nit da koo gënul ci rafetal wax nag laa wax wallahi bu dee nit ku social amul ku ko ci gën xale yëpp fa la ñuy daje ñun doomi jàmbur yoo am na ñoo xam ne seen yaay sax lañ koy wax wala de te jur ndax fa mu jóge moom ba muy ñu bari fekkewuñ ko ñun ñii fekkewuñu ko te kër maam waaw te ci taal ba coono ga ñuy daj ca biir kër ga pour am teraanga ci digg cin la moom yaayam da caa sonn Serigne Ahmed Sall mii te am na loo xam ne nag ki nga bokkal ndey ta bokk leen bàyyi yéen mënu ko mën a waxal sama yaay ñetteel la ci moom bu ma neexul ma ni déedéet kan moo ci man dara waaye déedéet nit boo gisee nena ngi danga naan nena ngi wàññiw la dara Adja Maimouna Sarr kenn musu koo dégg mu jiw nit musta xeex ak nit kenn mu ko soo akki musuma dégg ñu ne làmmiñam boo musa wax nit wala ñu dajaloo ci benn néegam dajaloo di jëw nit bañu betti leen amul amul loolu nag bu yàlla defee mu am ñun ñi bokk benn bàyyi ñu ñuy njëkkati kàddu wax ko ci biir mbokkam si Ahmed Sall daa def lu am solo te dañ koy wax nit danay am reconnaissance gis nga ki aaya nga wax ci garaawul soxna Binte ñu wax ci aayul am na ñoo xam ne ñemewuñu seen ñaareel toog ñuy wax ci seen aawo loolu ku loolu ku góoree dëgg kuy dëggul dëgg yaa koy wax ah ma ne nga def démb mu ñëw taxaw la yaag pajaas ya man xam naa ci lu bari nga sonn mu mbuur ngeen bokk ci benn néeg ngeen bàyyi kër ga jël lépp jox ko mu taxaw fii ñaareel bi toog mu koo bañ a wax kamu la fee wax ci mu jaar ci digg bi waa Cheikh Ahmed Sall ku la a re yow ku la gën a gore amul ñun xam nañ ñi ñuy waxee xam nañ communication bu wér am na loo xam ne boo ko defee tey dangaa jàngal soxna Bintu mii ndax maax gi mu maax baax gi mu baax ci biir mbokkam ñëpp xam nañ ni ni mu sa digganteeg moom ndax moom xam nañ ko làmmiñam jëfam moo ëpp waxam mu ngi nii kenn du ko xamee ndax jëf ju baax biir mbokkam ni mu koy def kenn ku nekk ci ñun képp kuy rakk Ahmed Sall Ndiéguène waxuma la ak mag wallaahi cër gi mu lay jël bu jëlee teraangaam jox la. waaw kon nag yow chéri Coco on on t'aime barke Nabi Moustapha on t'aime je t'aime nag ah, ndax ni nga mel a tax man firiwuma de sëriñ bi déglu ma rek xam nga damaa bëggoon moom mbay bari mi doon bëgg a barkeelu ci maam alaaji way yow nga waxtaan lu lay jël doon te cinq minutes la déedéet sëriñ bi non non non loolu mënta ñàkk ba dara xaaral xaaral waay xam na déglu léegi mu waxee foofu mu ne sëriñ ba mi ngi xam na dugal ma la duggi xol bi fiix لا اله الا هو عليه توكل هو رب العرش العظيم رؤوف بالمؤمنين انا اللي بقى سيدنا محمد انا اللي بقى سيدنا رسول الله ما اللي بقى دم الله رؤوف بالمؤمنين رؤوف بالمؤمنين باي والكن كوكب يلا كوكب رسول الله دعا ربك والملك صفا وجيء يوم بسهرنا يومئذ يتذكر الانسان ولا يزكى يقول يا ليتني ختمت لحياتي فيومئذ لا يعلم عذابه ولا يمسك وثاقه يا ايها النفس المطمئنه ترجي الى ربك راضيه مرضيه ادخلي في عبادي وادخلي جنتي تذكر الله سفيع للمذنبين ay kuy am bàkkaar bëgg rëcc am bàkkaar bëgg mucc kan la Seydina Muhammad dama xaral subhanahu wa taala mooy alxuraan ko ma kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walaakin rasuulullaah walaakin safiiullaah walaakin nuurullaah walaakin bayqaatullaah walaakin miftaaxullaah walaakin islaahullaah Thank you. Bismillah.

ak Adja Soxna Bintu Buy ñu koy ziyaara bu baax bu ñu leen ziyaare ziyaar Serigne Cheikh Fadel Njëgeen Serigne Abdou Ba Njëgeen suñu baay Serigne Moussa Njëgeen ak Serigne Khalifa Njëgeen ak suñu baay bi Alhaji Souleymane Wade Serigne Ahmed Njëgeen Alhaji Ibrahima Ba ñii ñu àndal tamit fa tabaarakallaahu ziyaar mboolem kilifa yi ñu fi fekk yëpp. moo xam ngay góor moo xam ngay jigéen ñu ngi lay nuyu bu baax di leen ziyaara di leen wàcce seen wàccuwaay tabaarakallaahu ñëwoon nañ fi tey si suba doon yëkkati kàddu jëmalew ko woon ci Serigne Ahmed Sall Ndiéguène fa ñu demee bay dugg ci rasulillahi la sàkku ni ñu xaar leen soxna si wàcc ngeen defee ko ci kanamam ak ci kanamu mbooloo mi yàlla dogal ñu woowoon ñu ci yeneeni jotaay ñu demoon ca ma ànd ak sama rakk yi tabaarakallaahu ànd kook Ibrahima ba mii tamit nga xamante ni ku ne xam na sama diggante ak moom tey di dimanche liggéeyiwul mu ni damay toog kër ga defuma fa dara yëkkati otoom mettre ñu ko à nootu disposition di ànd ñun fu ñu dem mu yóbbu ñu fa di wéttalante ak ñun fa tabaarakallaahu sëñ Ahmed ñu lay ziyaar bu baax. ziyaar suñu yaay ju tedd bii di Adja Bintu tabaarakallahu suñu diggante ak yow tax na bi ñu xoolee tant bi mu yees loolu sax dañoo xeeboon la sol sax dem solu jiwaat ngir gën a jëmmal sa jotaay ndax koo xamul noo koy def namula la dafa tax ñun ñii dañuy ndaw di sa taalibe wuy juur bokk ci kër gi sopp bi nga ñu tamit ba ñëpp xam ko léegi laa koy nettali ci oto bi ñu duggoon benn bés dafa ñëw programme yi bari lool ci kër maam alaaji programme yi bari lool sëriñ xalifa di désigner délégation yi kenn ku nen ak kam war a àndal keroog lu ñu lu toll juróomi programme amoon na ci bés bi benn samedi keroog bi ñu may classé bi ñu may classé dañu ma classé si délégation sëñ Ahmed Sall Serigne bi ni ko waaw ah Ousmane nag déggoon naa ak Ahmed Sall. mu ne ko papa kooku xaritam la ba Ousmane Seck ànd ak sëñ Ahmed Sall keroog ñoo ànd dem ba Ndakaaru kon nag képp kuy njabootu Maam jax ma Boro di njaboot suñu Maam Alaaji Ahmed Njigéen xam nga suñu diggante ak jëmm ji fu mu mës dem damay wax ni léegi rek la suñu xataay mu jéggal waaye fu mu mës a dem ñun ñii lay àndal ànd nañoo moom fu nekk ànd nañoo moom mbuul kayal ànd nañoo moom xiinin ànd nañoo moom kiren ànd nañoo moom sonon ànd nañoo moom nuur ànd nañoo moom ndakaaru ànd nañoo moom kër demba dëkk bu mu dem ñun la àndal ngir cofeel ak kóolute si suñu jëmm yàgg ñoo jàppale yàgg ñoo wone kon nag lu toll nii sëñ Ahmad bu amee fa tabaarakallaahu dinañu bàyyi suñu lépp ñëw ziyaar si la ndokkeel si la léegi laa ko doon wax benn anecdote marqué na ma ci moom tax na ma gën a fonk sama waajur benn bis dañoo dem ba war a dem Mbuur oto bi gaare ba ñu war a démarrer sëriñ bi woote ni dafa soxla oto bi daa am fu mu war a dem keroog noonu la ñu bàyyee oto bi jël jëli oto dem gaaraas dem jëli oto ngir war a dem Mbuur kon nag sëñ Ahmed ñu ngi ndokkeel ci bés bu tedd bii Bintu moo xewle waane Adja Bintu bu xewlee ci ëttu Alaaji Ahmad Borom faaw ñu tudd la ci ndax yaa ko ci boole yaay borom këram tabaarakallahu ñu ziyaar si la jaar si moom ziyaar ko kaale gi yàlla ràpp ak bu mu doon mujjantalu ajam yàlla na ko yàlla defal xajjan mabruuran te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alxajjul mabruur laysa lahul jazaa illa al janna xar nangu dara nekkul fayam lu aljanna gars yi nañu ko daan defee rek. mu gaaw ngeen gaaw ci man gars yi gaaw ci ñun ñu mën a teg micro bi ndax Sëriñ Ahmad nee na ma ñu ngi ci mujjantalu jotaay bi Baye Modou Cheikh Ahmad Bamba Xaadimal Moustapha laa ñëkk a nuyu ngir ma joobe Sayyiduna Muhammad kaay fii ñu jox la beneen micro bi ma joobe bi ma joobe sayyiduna muhammadu asaba rasulillahi inni xadimu xam naa dinaa bett sëñ Ahmed Sall waale inni xadimu waaye dégg naa si sëñ xalifa na ci yonent bi ci ay ayat yu bari ci rasulillahi الله أصاب رسول الله إني خديم taalibe yi dañuy dégg rek ñu naan yàlla tagg na yonent bi ne wa innaka la ala xuluqin azim asaba rasulallahi inni xadim yàlla tagg na rasulillahi ci jikkoom ni ko wa innaka la ala xuluqin azim asaba rasulallahi inni xadim may déglu di déglu bay dégg sëñ xalifa nekkati ñoo yàlla tagg na rasulillahi ci aayaat yu bare bare bare asaba rasulallahi inni xadim nekkati ñoo قول رسول الله ألم نشرح لك صدرك عسب رسول الله خديم يلا تقن قول رسول الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين عسب رسول الله خديم yéen a xeetu rasulillahi ni leen kuntum xayran ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billah asaba rasulillahi ni xadimu wakati yoo yàlla tagg na diine rasulillahi ni inna diina inda allahi al islam asaba rasulillahi ni xadimu wakati yoo yàlla tagg na kaddu rasulillahi ne leen wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa asaba rasulallahi bi xadim sëriñ Xalifa moo may jàngal ba tey ni ma nekkati yoo yàlla tagg na bëtu rasulillahi asaba rasulallahi ku sopp Seydina Muhammad na ñëpp def ni lu màgg rasulallahi ni ko maa saaxal basaru wa maa taxa asaba rasulallahi bi xadim yàlla sax tagg na sa saxaaba yi ànd ak rasulillahi asaba rasulallahi bi xadim jàngal muhammadu rasulullahi wallazina maahu ashiddaau ala alkuffari ruhamaau baynahum taraahum rukaan sujjada yabtahuuna fadla min allahi wa ridwana siimaahum fi wujuhihim min asari sujud asaba rasulallahi bi xadimu def jegeen yàlla boo ko ñàkkat si darajay rasulillahi asaba rasulallahi bi xadimu nekkate yàlla bi mu ne wallazina maahu saxaaba yi lay bëgg a wax asaba rasulallahi الزين خديم أشداء على الكفار صحابة ياكم أصاب رسول الله بخديم رحماء بينهم صحابة ياكم أصاب رسول الله بخديم ركعا سجدا صحابة يوكم أصاب رسول الله بخديم يبدأون فضلا من الله ورضوانا صحابة يوكم أصاب رسول الله بخديم سيماهم في وجوههم من أصل السجود صحابة ياكم أصاب رسول الله بخديم man li ma dëgg rasulilah bañ naan sept tonnes cinq cent li may dëgg dinaa si bàyyi saxaaba yi. asamba rasulilah ni xadimu. jërëjëf njëgeen yàlla yàlla fay la si dara ji rasulilah. asamba rasulilah ni xadimu. ba Serigne Touba tëggee rasulilah rek ni ayaa xaar. المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ يا خادم المختار لا تنس صحبه سري توبا مل لي كو خاجني جمم ديف كو ñaari jëm فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ خاج ñaari jëm def ko ñaar ci xaaj jëmmam def ko ñaari jëmm jàkkaarloo benn jëmm ji di wax ak moom mel ni ko ay yedd te yeddu ko ni ko ayaa xaadim al muxtaar la tansa sahbahu ayaa xaadim al muxtaar la tansa sahbahu waaye mooy signal yàlla na yàlla fay la ci darajay rasulillahi asaba rasulillahi ni xadimo ni ayaa xaadimal muxtaar yow mi nga xamante ni yaay mi noonu rasulillahi ayaa xaadimal muxtaar la tan sa la tan sa kul fati sahbahu faman yansahum falmadumatu lxat def dégeen mu ni faman yansahum képp ku leen fàtte fal maduxu kañ boobu ngay kañ rasulillahi maduxul kañ la boo xamante ni mu xatta ubu damm la aboubacar siddiq ku may ñetti rek mooy aboubacar siddiq mooy borom kóllëre bi borom dëgg mu rafiqu nabi muhammad rasulillahi sopp Seydina Muhammad la ñëpp def ñu màggal bàyyi Fatima الصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم أبو بكر لأنه ربما قال رسول الله تدير بابا أبو بكر لأن رسول الله سكنتم أبو بكر هو أن رسول الله بميدكم مدينتم أبو بكر صديق صدق ووفاء أبو حفص الفاروق شرواه نادر أبو حفص الفاروق شرواه نادر dina sa diin Musa ay sa sa siiw. Abu Seydina Omar moom nag ma ñaareel sax. moom la yàlla dimbali bu jaaree si mbedd ñeent fukki guddi seytaane du fa jaar kan moo ci topp. afisa bi ma daama. afara afara saya. suma nooru nihmal mu bay. Sëriñ Tuubaa nee na ñetteelu sahaaba yi Seydina ni mu tuddee Zul Nuurayni da ni noonu ni ñaari leeri denc ñaari doomu rasulillahi noonu la doonee zul hijratayni di borom ñaari gàddaay gàddaayu madinatu munawwara daf koo def waaye gàddaayu xabasa dem ca najaasi yu daf koo def ko abo akono ansani xusosi xiwaafa abu sibti al muxtaar abu sibti al muxtaar huwa maayini ayuba rabi iqbal mujaw ki may mujjee rek ñeenteelu sahaaba bi mooy Seydina Aliyu karamallahu wajhahu menn moom ci saxaaba yi moo musta jaamu xërëm moo musta sujootal xërëm kooku may ñeenteel ci xa saxaaba loo tax Sëriñ bi muy tëj ne asxaaba rasulillahi yéen saxaaba rasulillahi inni xadimuhu seen min naan la muhibban lakum fillahi wallahu yaxlaw maa ngi seere sama cofeel bu jóge ci man jëm ci yéen fa tabarakallahu ngir bàyyi leen xel akrim bi man amaro bil hijra bàyyi ki wax loolu Cheikh Hadj Abdourahim Sy Malick nee na akrim bi man amaru bil hijra kon maa ngi bëgg a daaneel di daanelee si Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh borom bi jaww bu rafet akrim bi man amarahu bil hijra alaaji abdu suñu doomu ndeyu maam alhaaji Mouhamed Ndieguene Ba radiyallahu anhuma ana ku sopp nga baax maali bàyyi sëriñ Moodo si nee na akrim bi man amarahu bil hijra asara fot mooy juubi sayyiduna Mouhamed alhaaji Abdul Aziz Si Dabakh akrim bi man amarahu bil hijra mu ni kawtif yi mu tax nga xamante ni borom bi moo ko digal ngir mu gàddaay rabbul wara laylan li daaril hijra yàlla moo ko digal mu gàddaay mu war a jóge makkatal mukarrama jëm madinatul munawwara min makkatin ma'araf النبي الكريم أيوة جوجنا ما كدوجنا مدينة من سيدنا محمد صديق المعروف في الجائر العظيم ملك منا أن صديق كي عمن تاني ما يكون دكوا بدي باي أبا بكر صديق واتصل الأمر كما بالأمر ملك بما أن أبا بكر دم مدينة جم تيون بغير من وسائل الإسلام بدون تصويف فنعم ذا الورى أن أبو بكر غير مدينة المنورة غير من وسائل الإسلام خرج ليلا معه للخير loolu mu nga amee ci guddi ca la ñu kiitee ngir mën a dugg Madinatu fi hawli mawlana ali sata mu nga amee ndigal ba ci borom bi subhanahu wa taala ngir war a dugg Madinatu kon hafidahu alhafiz hatta wasala kàttanal mooy aji kàttan di allahu jalla wa ala subhanahu wa taala yasrib min hunaka naar al amara ñu duggee yasrib ñu mu nuy Madinatul munawwara ngir mën a wasaara l'islam lam yabqa fi safari khayrul basar foofu mooy baladun bihi kullu fadaili qad jumiat الهنا في الغنى وكفى المنى أراك وهم إلى ذاك الحمى فاسأله من حسن ختامها وهداها دار الحبيب قلوبنا تهواها الصلاة مع السلام هدية للمصطفى ولعله يرضاها هي طيبة تابة لطيب أصولها تبارك الله سرين Thank you. I'm sorry.

waaye ku bëgg yonent bi def ni ñu màggal Seydina Muhammad te dëgg la tuuti xaw ni ma wax leen li leen defal alaaji xalifa dégg alhamdulillahi lamma xassani karaman dëgg la de مباح الاسم المختار والماحي ndax inni la abdahu ma koy def xubban wa mujibatan li kawni maxluq ومن ضوح فالله أعلن في ذكري علنا بذا قصصت له نظمي وأنباحي حبي وشوقي ووجدي وغرام له جسمي وقلبي وجسماني وأرواحي أركب سيدنا محمد وبابك ما وافاه عبد ولم ينم بجنونك ما يرجو من الفوز العظيم قد صلاته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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yëkkati ay kàddu rek kàddu yi it kàddu sant la rek ak ngërëm dalee nuyoo boobu ci sunu kilifa yi xam ne ñoo nekk ci jotaay bi dale ko ci sunu baay may sa njëgëm mu sunu maam Abdul Wahab njëgëm tey jii jotaay bii mooy kilifa gi ndax sunu baay la sunu maam Abdou Waxab Njëgeen moo ko jur ñu nuyu ko bu baax a baax xam ni jotaay bi jotaayam la ndax sa kilifa bu ñëwee sa jotaay ah lépp moo ko moom ci jéego yi nga xam ni yëkkati na ko ba yegg si fii ci jotaay bi ñoo ko ci sant bu baax di ko gërëm ñëw na ngir njaboot ndax sëñ Ahmad sàll bi nga xam ni soxnaam moo tax ñu daje fi Adja Bintu Pouy moom suñu bàyyi boobu bàyyi la ci moom kon tey jii su ñëwee teew gëdd ba ñuy jox Serigne Mounirou al Khalifa moom tey jii moom lañ ko jox sëñ Maysa ñoo lay nuyu bu baax di la sant la gërëm ci jotaay bi di nuyu suñu kilifa sëñ Bada kàddu yi ma jël moom tey jii moo ko waroon a wax ndax mag la ci ñun bu fi Serigne Cissé nekkoon wala Serigne Juudu ñooy jëkk kàddu yii wax ko moo tax man mii nga xam ni tey jii maay rakam ma jël kàddu yooyu wax ko ngir ngërëm loo xam ni dañ koy jël doyal ko ci ajaa Bintou Pouye mi nga xam ni tey ji moo waral jotaay bi ci turu sëñ Cissé ci turu sëñ Duudu ak sëñ Bada mi ngi jël kàddu yooyu kàddu sant ak ngërëm ak ñaaŋ teraange yii yàlla na ci yeneen topp ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi dañuy yëkkati fi ay kàddu léegi sunu bàjjan ajaratu Binta Kayaar Njigéen mu wax am solo mooy Cheikh Ahmad Sall mii di sunu rakk nga xam ni moom mooy borom këru Adja Bintu gërëm ko sant ko waaye fa wax moo xóot te foofu it teg suñu tànk ndax dañoo wax ni ab tegale su jubee maanaam ka jiitu moom la ba lépp li ci des lépp jub muy soxna Marème faaw ñu tudd ko sant ko ci li nga xam ni moom ànd na ko suñu rakk ba tey jii ba soxna Roqaya tegu ci soxna Bintu ñëw waaye ñoom bi ñu ñëwee rafetal nañ bu baax a baax a baax a baax ànd boobu soxna Bintu tey jii moo aye waaye wax dëgg yàlla jox na cër bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñooy kilifa Cheikh Ahmad Sall Jigéen muy seen Cissé muy seen Dudu ak sunu rakk yi nga xam ni seen Bara ak sunu rakk yi nga xam ni tamit ñoom ñoo nekk ci suuf. gëdd googu mu jox sëñ Cissé jox ko sëriñ Diouf ak sëriñ Badam ak man mii moom la jox suñu rakk yi kon kooku bu ñëwee jógee fële ci màkk ñu koy tey jii di ko sargal kon taxawaay boobu mu taxaw suñu kilifa yi muy suñu mag ñi wax dëgg yàlla loolu dinañ ko bëral bu baax a baax a baax ba mu ñëwee ba léegi yar ak teggin ak teraanga moom la nekk ci kër gi loolu mën nañ ko seede bu baax a baax a baax di nuyu jotaay bii it sunu xarit yi nga xam ñoo fi nekk alaaji Souleymane a ngi nii di sunu rakk di xaritu Ahmad Sall Ndiéguène fu mu teew Souleymane moo dina fa teew ak teraanga yu rëy ak yu mag ñoo koy sant bu baax di ko gërëm ñu nuyu Ousmane mi nga xam ni moo syndicat bi léegi loolu it ki nga àndal mooy Ibrahima Ba di sa xarit moom dinañ ko sant bu baax di ko gërëm suñu rakk la suñu mbokk la waaye nit ku baax la mais xam naa ni tey fépp fu Ousmane dem tey ji ànd nag moom ngir lu baax rek Ibrahima sëñ Ousmane yal na yàlla barkeel na fii yëkkati sànni ko ah yal na ko yàlla barkeel moo nit nga def ci bis yu nekk ñu ngi daje muy diine da wax lu baax boo mënee sànni say kàddu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nga ko def te loolu it du tey nga ko commencé yal yàlla barkeel na ñu nuyu suñu rakki sëñ Abdou Ba mu baax ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci taxawaayam waaye it ci ci sëriñ bi Abdou ñoo lay sant bu baax di la gërëm yal yàlla barkeel na sëriñ Amet Njegen di sunu rak depuis ci suba moo ngi ànd ak sëñ Bala ci teew ci jotaay yi rek sonnul tàyyiwul moom it ku baax la mu ñuy santé Abdou Malé ci li nga xam ne moom lay liggéey ci service am Amet noonu lañ koy sant di ko gërëm dëkk bi yëpp koo dajeel ñu ne Amet Njegen ñu ne lu baax la ñuy defal loolu serak bu ko taxawee ci dëkk bi loolu dinañ ko sant bu baax gërëm ko yàlla na yàlla jàppale ko yal yàlla jàppale ko ci liggéeyam di nuyu sëriñ xalifa sant bu baax gërëm bu baax xam naa ni kàddu yi nga xam ni sëriñ bi dina ko yëkkati man moom laa koy bàyyi yéen mu jooyal ko ndax am na lu xam loo xam ni lu ci bëri waa baax na xam naa ni jotaay bi yàgg na waaye lu baax la waaw lu baax du doy samay kàddu yi man na koy sànni rek ngir Cheikh Ahmed Sall ma sama tofal vie moom moo topp ci man waaye wax dëgg yàlla li may wax rek nit mën naa nekk sa tofo ngeen yi jàppante guddeeg bëccëg waaye moom mii masumaa xulóog moom yàlla def na ko masula jàppante ak man masuma wax lu ma naqari masuma koo dégg te xam naa kenn du jëw du ma jëw ci wetam loolu nag sarak mu yàlla defee mu nekk ko ak yow man yàlla yenn saa yi sax sama yaram jagam waaye moom nii laay woo kon xam naa moom fu mu toll ci man xam naa ko bu baax man maa topp ci sëriñ Bane ñoom ñëpp nag sama mag ñi wax dëgg yàlla dama leen sant di leen gërëm ndax masuma werante ak ñoom ñoom masuma dóor masuma saaga loolu nag lu jafe la waaw lu jafe la ndax cër bi ma jox kon ñoom dama leen sant bu baax di leen gërëm sëñ Badam yi ah, kenn mënu koo fay maa ngi koy wax ci laylatul xadri bi naan Serigne Badam bu dee def ngir yàlla kese la ci tagg yonant bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci wax naa ko keroog te it loolu dëkkee waaw kon bu teewee fii moom it ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm dama doon wax seen xalifa nde suñu rakk yi macha allah bay faale yi nii doon waxtaan ñoom ñëpp wax dëgg yàlla lu baax rek la ñuy taxawee te xale yu baax la ñu man damay bu ma ñëwee ci jotaay rek dama ñoom bu ma leen fa fekkee macha allah du ma sax sànni ay bu dee ñaan sax dama leen koy jox ndax seen taxawaay ndax seen baax ñoo ngi sant bu baax di leen gërëm di gërëm waa taxi kaw yëpp Moussa Cissé gi alaaj Mor Diop di xaritu seen vie koy sant bu baax di ko gërëm taxawaayam rafet na alaaji te ku mën a organiser a def lu baax la alaaji xalaat yu baax la yàlla xam na ko waaw koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm it As suñu xarit la di xaritu suñu bàyyi may sa njëgeen Malick waaye am taxawaay bu ràññeeku ñu bàyyam daan taxawee ci kër gi noonu rek lay taxawee Omar Ngara jërëjëf Moussa Ciss moom moom dañ koy ñaanal rek Moussa sa taxawaay rafet na Souleymane jërëjëf kontaan nañ bu Ibrahima mi Souleymane mii laa wax waaw dama dinaa ñëw ci moom waaye Ibrahima mii laa wax ah, Souleymane jërëjëf kontaan nañu ndax yow depuis Zakirine lañ la ràññee bu baax sa taxawaay lu xew it yaa ngi taxaw ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm Ibrahima Diack xaritu seen bala bokk ak moom liggéeyukaay ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci taxawaay bi yàlla na yàlla fay la jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax di sant ñëpp rek di gërëm waaw sëriñ Dieng moom may wax Alaaji muy suma rakk ñuy wax asfal ñu ngi koy tuddee asmalik mu ngi tuddee asmalik njëriñ waaye asfal lañ ko gën a xam ñenn ñi train surnom bi ñoo ngi koy sant baax di ko gërëm ci taxawaayam depuis biig ci guddi man mi ñu laa fi jóge démb waaye moom mii moo ngi taxaw bu baax a baax a baax jàppale vie ci bis bi ak Adja kon moom it kenn fàttewu ko ñoo baax di ko gërëm moom it ku am njariñ la waaye ku noppi la ku yaru la suñu rakk la moo bi ñoo koy sant bu baax di ko gërëm ci taxawaayam sant nañ ñëpp rek gërëm ñëpp suñu doom yi Omar Diaw ak ñi nga xam ni tey jii ñu la yore animation bi ñoom Pape Mounirou Maodo ñoom ñëpp daal seen taxawaay rafet na tey kontaan nañ ci yéen ñoo ngi leen di gërëm Pape Ndiaye Samb jërëjëf jërëjëf jërëjëf wa baadu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñoo ngi leen di ziyaara ñoo ngi leen di baalu xaq di leen ko baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mi amee njéggal yàlla nanu yàlla boole jéggal di ko ñaan itam moom mi nga xam ni moom mi nga xam ni mooy nangu jëf jaam yàlla na yàlla nangul na sunu jaamu yàlla yépp jiital ci nuyoo bi ni ko Serigne Cheikh waxee waajur li fi nekk muy Baye Moussa teg ci Serigne Bada mi nga xam ni sunu mag yi moom moo fi teew wuutu leen fi waaye teewaayam dafay bari solo lool ndax teewaay boo xam ni dangay boole ñaar sagal njaboot ba noppi doon tam kilifa ci xadra bi ba noppi waaye mooy tàggkatu xadra kër maam alxaaji Mouhamed Ndiéguène ku fay tagg yonent bi rek fii nu toll nii mooy sa kilifa kon teewaay yooyu day doon teewaay yoo xam ne yu am solo la ci suñu jotaay kon sëñ Bara jërëjëf yal na la yàlla wéral yàlla dundal la guddal sa fan ni ñu ko limee ci délégation yi fi teew yëpp duñ ci mën a jaaraat ndax Serigne Cheikh Fadel Ndiéguène tudd na ñëpp lim na ñëpp wax na ñëpp seen taxawaay waaye kon moom itam sëriñ Ahmad ak sëriñ Abdou Ba Ndiéguène mbaax yi ñuy def ci seen service mën nañoo wax ni moom mii bokk na ci ñi nga xam ni dañ koo royee ci moom ci mbaax sëriñ Cheikh ci yiw yow doo wax wax buy gaañ kenn yow doo wax luy gaañ kenn doo wax doo kontaan ba wax lu ëpp doo mer mer sax buñ ko gis boo wax loo yiw baax li nga wax ci gaa ñi ñëpp buñ ko dajalee moo nekkaat ci yow sunu mag yaa ngi nii ñun ci kër ga lañ yaroo musuñoo gis nga werante cee kenn wax nga ñëpp nag ku nekk taxawaayam mais yow sa taxawaay ba pare li gën a am solo mooy sunu jur état de santem nga koy suivre comme il le faut ni mu waree kon yow kay kii sëñ bi moo wax secret sax def na prêt sax pour sëriñ bi faju ji France prêt xam nga fii ku def prêt da ngay dem tabax sa kër mottali say mbir ak yooyu moom def na prêt sax pour sëriñ bi dem faju ji France kon xam nga moom mii tam bu waxee mbaaxu sunu mag yii ba wax ñun ñi nga xam ni dafa guñ dara yell na ñu wax leen moom itam taxawaay bi nga xam ni njigéen moom nga taxaw ci société bi taxaw ko ci xadara bi taxaw ko ci sëriñ bi taxaw ko ci suñu kër yal na la yàlla dëgëral ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndokkeel bu baax alxajja soxna Adja Bintu Puy moom itam ziyaara ko ñaanal ko yàlla yal na la yàlla nangul démb li ma wax rek moom lañuy ñuy yeesal rek mooy yow waxal alhamdulillah fa nga demoon du man-man du alal du wér du pexe yàlla la yàlla xam nga lu tax mooy yàlla mooy désigné boo demee foofu liñ leen di tuddee mooy duyufullah ganu yàlla yi puisque ñooñu yàllaay tànn mooy sélectionné ñii ñëw dangay gis kuy yóbbu ñeen fukki nit waa juróom fukki nit te mënul dem gis koo xam ni day xëy amul ndékki ngoon jot mi woo ko ne ko di nga dem fekk ne yàlla moo ko désigné li ci neex nag mooy jaar gi nga jaar ci ku baax ki sallallahu alayhi wa waa ju baax jooju yiw tedd tabe mën nitam xam nga foofu kenn du fa dugg yàlla di la gàntal kenn du fa jaar yàlla di la gàntal kenn du fa jaar yàlla di la gàntal loolu mooy li jara sante yàlla dem gi nga dem ba dugg ci bërëbam bu tedd boobu bu ko defee yàlla na la ko yàlla nangul ni ko Serigne Cheikh waxee ñu ngi lay sant bu baax ndax àddina moom joxe cër rek moo fi am li tax sunu jigéen ñii toog sunu soxna yi toog sunu mag yi toog sunu rakk yi toog loolu sa diggante la ak ñoom bu doon Cheikh Ahmed sàll ak Cheikh Ahmed Sall rek bu ñu ñëwee ba mu gis rek ñu mal di dem ndànk roccee ko waaye joxe cër goo joxe cër fonk goo fonk léegi bi may ñëw sunu wayjur Serigne Muniru yàlla rek mooy sama seede man su ma ko gisul woon sax fu ma dem ne sëñ Muniiru nee na mu ngi leen di nuyu. mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm. day valable waaye léegi bi ma fay jóge mu ngi yóbbante ay cant ak i ngërëm wax ma ni teraanga yëpp agsi na. teraanga yi ñu fi séddale wàllam lépp ñëw na luñ fi joxe rek nañu jàpp ni wàllam ñëw na nee na nag teraanga yii teraanga yi démb yi moo ko gën a neexal sax mooy yëg gi daf ko wéyjur daf ko bàyyi daf ko xarit. def ko soppe ba pare yëg ko am yar ak teggin seen diggante yéen ñaar sëriñ baa ngi lay ndokkeel bu baax mu ngi lay ñaanal yàlla bu baax ñaan suñu boroom loo fa jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu ci darajey Moustapha mu baax mi sallallahu alayhi wa sallam sant bu baax suñu mag imaam Cheikh Ahmadou Sall Ndiéguène sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla kër gu nekk day am ñoo xam ni ay tet lañ ci biir kër gi ñii dinañ leen mag ñii ñu mag ñu mag leen ñii mage mais moom dafa am lu ñuy wax waxtaanu diine wala conférencier wala gàmmukat walla ki njëkk laxas ci suñu kër bàyyi papaam bàyyi yaayam bàyyi ay mbokkam dem daara jàngi ñëw ci biir kër gi fekk sëñ Bada mu jàngi métier ubbi atelier boole ko tagg yonent bi jàppale suñu wayjur fekk sëñ duudu mu jàng métier ubbi entreprise fekk sëñ Ahmed Cissé sëriñ bi boole ko Baye Ahmadou Yoro mu jàngal ko ba mu mën a liggéey di liggéey di indi ci kër gi fekk keneen ak keneen sëriñ Cheikh Cheikh Ahmed Sall moomu noonu la doonee ténor ci sunu kër ci képp koy taxaw di wax ci diine képp ku taxaw tey laxas ñun ñëpp jàngi nañ waaye moom moo ñu wan ni ñu jàng daara jàng alquran jàng xam-xam yam ca gën sa bopp gannaaw bi nga gënee yàlla ak yonent bi doo torox sunu kër mag ñaa ngi fi intellectuel yaa ngi fi ñi am salaire fonctionnaire yi ñu ngi fi mais moom bu avion doon sàppi sàppi na ko bu tukki doon sàppi sàppi na ko fu nekk ñu xaar ko fa boroom xam-xam yi boroom alal yi boroom dayo yi boroom daraja yi toog di ko xaar mu ñëw jël li nekk ci dënnam servi ko ñoo ñu dem defaraat ci seeni jikko defaraat ci seeni àddina moom mii gannaaw suñu bàyyi suñu ndey yi moom mii lañ koy sante moom moo ci suñu exemple ni sëñ Ahmed Cissé melee ci kër gi ku ñëw baax yaru yiw am kilifa fonk suñu baay njëkk liggéey indi jox suñu baay ba keneen ku ci topp ñu sant la gërëm la moom mii tam noonu la taxawee ba ñun ñi ci des ñëpp ñu gëm ni ndekete jàng alquran jàng xam-xam fu gaa ñi tekkee baax di fa tekkee baaxee fa moom mii lañ koy santee waaye tam muy nit koo xam ni nit ku tedd la kii mën naa nekk ku nekk ndax amul amul ay façon moom ay ku ko mere man moom su ma amee lu ma naqari woon ci moom man yàlla xam na ni dinaa fexe fexe fexe boo ko ndax koo xam ne xamul ko ku sajj xef xamul ko mer xamul ko am problème waaw kay siñaan <laughs> man firiwuma nag <laughs> waaw ko xam ne xamul loolu jërëjëf siñaan yàlla na yàlla barkeel nangu ziyaara bi waaw noonu la ko yàlla bindee waaw mën kii mën na nekk ku nekk day ànd ñun dañ daan ànd ñun ñu dem conférence boo am moo ko firi ñun xamal luñ ci am xalif ñëwal ñu ànd conférence ñu dem ba pare mu mu waxtaan waxtaan wi ba mu jeex jël xaalis bi jox ma ne ma séddaleel wala mu jox Ibou Dia ne ko séddaleel buñ ko séddee ba pare muy laaj ba xam ba lor woo leen ba ba sëñ bi baax na ba def na nii ba def na nii ngir mbaaxam ak yitteem waaye ko ànd ak nit ba pare da ngay def sa poos boo pare génn séddee mais moom jikko yooyu sax ci moom lañ ko jëlee ak sëñ Bada way ngir yàlla firi ngir yàlla waxtaan ngir yàlla way yonent bi ngir yàlla lu la ci dab dalaa dab mais lépp ngir yàlla la moo tax ki nga am tam nit ku baax la nit ku yiw la tey jii bi may ñëw sama papa moo ngi wax naan Cheikh Ahmad Sall ah waa ju baax la de yàlla seede na ko di ko seedeel ku ñuy wax Fadel Diop di ko wax kii mbaaxam léeg-léeg damay toog nii sama papa da koy woo téléphone gis nga li mu koy wax mais sawaay ndeysaan dafa baax moom moom mu ngi noonu waaw mu jigee am na bis boo xam dama ko woo sama téléphone papa laa jël woo ko allo foo nekk yow ah papa man maa ngi fii kii man ko man la sa papa xalifa musaaga ma <laughs> ngir wax leen nag ni mu fonkee sama papa ba mel koo ragal ba ragal ko rek ne Sall tey moom Sall la xaar ma jël téléphone sama papa composé allo vie Sall foo nekk Ah, man maa ngi fii kër Demba kii eh, looy def foofu ah, damaa ñëwoon kii kii man ko man sa papa xalifa xam nga kuy def loolu sa sa sa sëriñ mooy wane ni nitu jàmm la ku baax la kii waaw yàllaa ko baaxal ah, ko baaxal sama maam alaaji tam ñaanal ko gërëm ko mu liggéeyal ko sonnal sunu maam gaa yëpp nekk si muy dem sama maam di ko solal yëre yu rëy kaala mbaxana muy dem di ko missionnel moo Pape Cheikh Kandji yal na yàlla dolli ko wér moom tam wala ñoom duñ torox de ñoom duñ torox duñ torox dañoo liggéeyal maam alaaj ba mu kontaan sant am tam ñu doon wax ay wax bam maam alaaji warlul leen moo tax ñoom war nañoo xool ña daan wax <laughs> ñu dem neexal leen ndax ñoo ñoo tax maam alaaji warlul leen <laughs> waaw bu ko defee Cheikh Ahmed kontaan nañ soxna Bintu kontaan nañ waaw ci jàmm ji toogaayu euh, soxna Marème Ndiaye mais wane na jàmm toogaayam daa am lu bari lu mu wane toogaayam moom tam nii nga mel rek noonu la mel ñun ñii gën a tuuti ci kër ga digal nañ ko mu def tere nañ ko mu bàyyi moom ñii gën a tuuti digal nañ ko mu def tere nañ ko mu bàyyi baax yiw ànd ak jàmm sunu yaay Adja a saar sunu yaay Adja a saar nit ku baax la nit ku yiw la nit ku tedd la man sama yaay ñi mu mujjee jur ñëpp maag soxna Xadi sunu yaay amul cër ci ci ñun ndax moom moo ñu jël man moom laay wax yaay ba tey ci suba soxna salee ngi nii sama mburu ndékki fa lay jóge paa bu ñuy jox ndékki bu reer jotee sama papa moo may woo reer yàlla moo ko def kenn mën ci dara su may bañ bañ sax dañ may forcé bi ma fi njëkkee bañ ne sama yaay mburu mi daal bàyyil may kii daa mer ndeysaan ngir mbaax rek ak di sàmm digganteem ak suñu wayjur Adja aw Cissé suñu mag yaa ngi nii kenn mësu leen a yéew ci kër ga kenn mësu leen a yéew kenn mësu leen a atte kenn mësul wax noppil ku amaan gan da ngay woo sa morom ñu bokk toogandoo ba gan gi dem ñu gunge gan gi mu dem kenn mësul mën a wéet ak kenn wax ci moroomam dara dund gu baax lañ dund waaye nag suñu yaay Adja a Sarr moo yaatal suñu yaay Adja Awa Cissé ndax moom moom la fekk si woon mu yaatal ko uuf ko ah, jàpp ko jàpp ay doomam sëñ Ahmad ñoom ñun ñëpp ci moom lañ nekk moom lañ xam moo ñu yar ah, man li ma génne foofu man li ma génne sama néeg yaay miina ma dellu fële sama néeg yaay Awa Cissé xadi la ndax ñun ñaan ñëpp mënuñu faa nekk di fa fanaan xadi la maa ngi fàttaliku bi may génn foofu di dem kees lañ ma defaloon samay yére keesu warga yu njëkk yéen daan jaay ci la sama yaay mii na lem sama yére dugal ko ci loolu moo ma génne néegam waaye bi ma génnee ba pare terewul keroog man dañ may uuf di ma uuf ba ma toll ni ba ma màgg sama papa di ma uuf di ba ma tëdd ci piliyaanam bu ma tëddee teg sama tànk mu tolloog tànkam sama bopp tege fii man maarus wàcc kenn musuma boddi ci ñoom kenn musuma dàq sunu mag yi itam noonu lañ ñu def yaatal ñu bëgguñu ñun sunu mag yi dañ ñoo bëgg yaatal ñu cër yi ñu am ci suñ papa ñii ñoo ko moom ma ñoo ñu naan ma waxal sa kàddu papa ñii kan moo leen gën a baax ci àdduna am na man magee nañ ma ay dix-neuf ans vingt et un ans vingt-trois ans man loolu lañ ma magee nga ñëw ñu lay sagal di la encourager di la wax ni la góorgóorlul dina baax kon ñii kay ñun foog ñu jàpp leen ñoom ñoo ñu jàpp jàpp sunu yaay Adja Awa Cissé ñun sunu yaay bu kafee ree ñii la sëñ Bada sëñ Cissé seen Fadel sëñ Fadel bu ñëwee nuyoo kii ne ko xàmmee woo Fadel dana noo man xàmmee moo ma mii ndax man Fadel mi ma xam day génn xaalis jox ma man Fadel moomu laa xam xam nga kon kay ñii fonk nañ suñu yaay jàpp nañ ko teral nañ ko loolu moo am ci kër ga Marème ñu ngi lay sant bu baax yow tam yàlla nañ dund balay teeru lii soxna Mati ma fa njëkk tam taxawaay yooyu la ñu taxaw fonk ñu te ñun ñu yàlla dimbali lañ ñun sëñ Muniir mooy suñu papa ñun sëriñ Muniir mooy suñu wayjur ñun duñu ragal dinañ fexe nag masta am jàmm ñëpp mais duñu ragal mënuñoo ragal ndax wayjur wi ñu am waaye nag yéen a ngi def lu baax ci suñu kër bàyyi yal na leen yàlla suturaal yal na yàlla barkeel seen njaboot yi yàlla baaxal leen yàlla yiwal leen bay yéen seen njaboot yi tam toog ba gën sunu mag yi ndax sunu mag yi ku leen gën ba mucc nga ndax baax nañ lool sunu yaay yi tam baax nañ ñoom ñëpp a baax ñoom ñëpp a baax ñoom ñëpp liggéey ndax sunu baay ni ko yàlla bindee moom nii la mel nii la mus a mel ba tey nii nii ci loolu lay dox bu ko defee nag yéen ñi ñëw yéen wàcce sunu yaay yi ci wàññi sunu yaay yi ah, sama yaay Maymuna soxna Mati moo ñëw mu wàcc Binta sekk ñëw mu gën a noppalik yow bi nga ñëwee sama yaay Awa Siise lañ la féetale mu wàcc waañ wi ba ñeneen ñoom soodaak ñoom ay chaak ñoom ñeneen ñëpp ñëw ci kër gi lépp di rafet kon yéen yeneen a noppal sunu yaay yi te ñun sunu yaay yi ñu baax lañ ndax sunu baay moo taxaw gërëm leen ci bi muy man ànd ak xelam ànd ak yërëm sant leen kon yéen ñi ñu sant ku leen defal cant googu ak ngërëm googu faw ngeen am ci yal na leen yàlla suturaal sunu mag yi itam baax nañ ñoom ci seen kër yi toog sono lu ñu suñu papa ñu ngay sëy seen sëy jàpp nañ seen borom kër yi fonk nañ leen yërëm nañ leen ci sama ndigalu papa kenn ku ci nekk sama baay moo la mayee amul koo xam ne daa ñëw nii rek suñu kër ñëw nii rek bëgg di dem di dikk ba ñu woo la ne déedéet ñun ñëpp ndigal moo leen dugal si ñu nekk tàmbalee ko aji mara ndey géey aji maram ak ba ki mujj ñëpp sama baay mooy tànn maye baa rakkam ñëw tànn maye baa sama turandoo paa xalifa ñëw tànn maye ba ci jëmb njagatin xalifa bajaan moo ñëw wax ak xamu ko xam ñu maye noonu la suñu mag yi demee nii ñii ñëpp noonu lañ leen mayee waaye nag ñu ngay toog di sagal suñu baay di muñ ngir yàlla ak yonent bi xamuñu am nañ xamuñu ñàkk nañ ñu ngi sëy ci dignité seen borom kër yi bu ñu ñëwee sant gërëm mais mais àdduna ngor la léegi mu jeex àdduna léegi léegi rek beneen génération ñooy ñëw ci suuf si di lekk ak di mais kon ni ngeen ko rafetalee baax na yal leen yàlla suturaal yàlla barkeel leen waaw sëñ Ahmad mënul wax ci mbooloo yi ne moom kon bu boobaa moom sax mooy jël kàddu gi ba ngeen sunu dëkk ak yéen dëkk bu rafet la yéen a ñu njëkk a man yéen a ñu njëkk a xam yéen a ñu njëkk am yére yéen a ñu njëkk a am dàll yéen a ñu njëkk am xaalis lépp ci yéen la njëkke mais da ngeen koo rafetal ba ñun bi ñu ñëwee mënuñoo def dara ñun loolu rafetal mënuñu leneen alfadlu lil mutaqaddimi ki njëkk a jëf yiw ak njekk ci yow mais kooku mënatoo ko fay boo indi bu doo joxoon mille francs nga indi quatre cent mille tam fayoo ko ndax moo la njëkk lebal njëkk ak yiw kon yéen ñun mënuñu leen fay yàlla mu baax mi yàlla na leen yàlla fay dolli seen wér dolli seen jàmm suñu bàjjen binta tam jàmbaar la suñu bàjjen fu ñu dem mu fekk nu fa bàjjen binta jàmbaar la sunu waañ yéeg sunu ngénte yeeg sunu takk yeeg yëpp moo ci man yàlla na ko yàlla may wér njabootam itam Ousmane Boubacar Cheikh Oumar yàlla na leen yàlla barkeel ñoom tam ba ñu mel ni sunu mag yii te te di ngeen baax seen baay daa def lu baax seen mbir billahi daa def lu baax ba tabaski ren jii am na ñun dimbali ñoo xam ni man mi nekk ak moom daf ma koy nëbb daa fexe ba dàq ma yónni ma yónni bu gaaw ma dem dëkk ndekete daa am ku mu bëgg a dimbali te bëggul ma na xam ko te maa ne man maa fa nekk suba ba ngoon mais am na ku muy dimbali koo xam ni bëggul man ma yëg ko mu yónni ma yónni bu gaaw comme man xale laa yónni bi daa gaaw ma dem bi ci bunt bi laa gis xar mi taxaw kooku taxaw ma reculé waat xam ni kii lii la ma doon dàqee di bañ ma fekke ki mu doon dimbali ngir yàlla foog gaa ñi am lu baax waaw te moom day jëf gis nga léeg-léeg pour wax leen day jëf ngir yàlla nit ñi dañuy nekk ci saal bi wallahi ma dugg sëñ bi mu ne lan la man ko gaa ñaa ngi toog ci saal bi de waaw doo leen wax awma ma man quoi te ñoo toog xaar tuuti rek waaw baax nañ xaar ñu toog mu lijjanti lijjanti ba ñu am may génn jox leen kenn ku nekk du xam ñaata la du xam kan la du xam fu mu jóge loolu mooy jëf ngir yàlla du génn néegam du leen lijjanti du leen xam soxlawul merci du xam kan ak kan la moo yu baax yooyu muy def foog gaa yi am lu baax te moom njabootam du ñu sant jigéen rek déedéet ñi ñëpp ci lañ bokk yu baax yi muy def ñëpp la ko liggéeyal ñëpp la ko liggéeyal moo tax ñun tam kontaan nañ waaye di leen séeréel suñu mag yi ay mag yu baax la ñu am buñ doon échangé waat wala di tànnaat tam ñun dinañ leen tànnaat yàlla séede na ndax seen mbaax ak seen yiw kàddu yooyu daal laa doon wax ci su turu suñu wayjur turu sunu mag yi waaw sëñ Ahmad bu mënoon a yëkkati kàddu moom laay jox mu yëkkati kàddu waaw ndax moom tam Euh, waaw noonu la dëkkee ak gars yi foofu ba pare gars yi jël responsabilité yëpp sëñ Bada mi fa nekk ak sëñ Cissé tegaat ko ci loxoom te loolu mooy li rafet waaw yal na leen yàlla li jàmm ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jul juli yonen bi samathu rasulillahi fasil wa ajmili wa qul lilladi بحب تنفلي ضمان علينا مدعو أفضل المرسلين محمد الأمين فمدح رسول الله من عوكد الفرض سيد الأولين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم فإذا رحمت fa anta um aw abun yonent bi fa ida xatibta fa lil manabiri izzatun boobu la yonent taaru nadi wa lil qulubi bukaa'u yonent bi moom dong la nu yaakaar bu ëllëgee mu jàlle ñoo addiya jàmm ak njëgën yow yaa def lépp ñaanal yaa moom billahi min asheytaan arajim bismillahi arrahmani arrahim la hawla wala quwata illa billahi alali alazim naamaduhu ala kulli xaal di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla di wax ajaratu kaalam gi yàlla na ko yàlla ràppal jaay sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla ñi fi yàlla jéggal leen seen i bàkkaar waaw barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ah ñaan loon ngeen ma nag waaye dafa am loo xam ne fekke cër la ndax ñi fi orateur yi fi jël kàddu yi yëpp wax dëgg dëgg tooy nañ xol yi lii bu amutoon wurus ndax dinaa ci seede tuuti rek donte ñu ngi xaar li xalifa daanelee rek moom lay wax man yéex naa xam ni xalifa mii yaay wa sis mooy mooy waajuram bu jigéen wallahi la azim yéex naa ko xam ndax kër googu ak kër baay waxaab benn la woon foofu laa yaroo mais kër baay kër mun a Saar foofu lan daan toog badam yi bokk na ca ñu yar waaye xam woon ni yéex naa xam ni euh, xalifa mii wallahi la yaay wa sis mooy mooy bu jigéen kon nii ngeen àndee ko rafetale ko nii macha allah kër suñ mu niru référence la ci kër maa laaj yéen du ngeen nekk ay doomu baay ay doomu lay déedéet da ngeen ànd doon de benn dank ñu da leen a teg bët di leen xool di roy ci yéen doontale seen baay lan yàlla na yàlla yàggal ànd bi yàlla na ko yàlla yàggal jaay sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ni ah kontaan na baax mënoon naa yemale ci kàddu yi sax ndax sëñ Muniir li mu yebal xalifa mi mu wax ko naa ci ndax moom sama kilifa la sama wasili la ba sama waajur bu góor làqoo moom laa jëlaat sama kurus ñëw ba ci moom ne ko yeesal ma yeesalu ci moom ndax man sama sëriñ la moo tax du léeg sax di ca dem ci lu bari du ma ko def ndax daa am fu ma ko teg te moom it xam na macha allah ah kër Baye Mounirou ne dama fa am cër boo njëkkatee lii ñaan loo ma rek wax dëgg yàlla def ngeen li ngeen war a def maa ngi leen di gërëm di leen ñaan yàlla di leen ñaan yàlla yàlla saxal uh, ànd bi ñi fi nabi yi nga xam maanaam tëggkat yi yonent bi kàddu yi ñu fiy jëb yëpp tooyal xol yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen fasaax ñi fi doon firi ñëpp nag dégg nañ fii lépp waaw moo doon yi fi jaar yëpp dégg nan ko macha allah yal yàlla yàggal jaay sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah kon nag ah dañuy rek eh, ñaan ñi nga xam ni moom lu ñu góor gi euh, alaaji Moodu saxaloon ci suñu xol bi defal na ko ñu ñaan boobu rek ku ci man def set ñetti salaatul fatih juróom ñeent yàlla tiif texañ ci aajo yëpp yàlla ko yàlla fa jaay sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu mu doon mukk sunu wujub daje jaay sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu pare ma jox alaaji bada moom itam mu tëj ko barke sidina muhammad yàlla yàlla nangu ñaan yëpp xol yi tooy na guddi na moo tax du ma yaa du ma guddal wax ji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 الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة وأنت الوهاب mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax waaye di ñaanal ki nga xam ni mooy sëriñ Muniru Njigéen alxalifa di ko ñaanal gudd fan ak wér waaye sal yàlla sàmm ko aar ko dolli ko sutura ak gis nañu njabootam taxawaay gi ñu taxaw tey ci ki nga xam ni mooy Adja euh, bin Bintu Puy ci nganale gi nga xam ni def na ko dégg nañ fi ay borom xam-xam waaye dégg nañ fi waxtaan dégg nañ fi li nga xam ni mooy bëgg ku ne xam na ni dem ci yonent bi rek a neex waaye dem ci yonent bi rek moo màgg loolu confirmé nañ ko tey waaye ci njabootu ki nga xam ni mooy ji mu Serigne Mounirou Ndiéguène di ko ñaanal bu baax képp koo xam ni euh, seetaan na lii ñu ngi lay ñaanal ni ko Ahmed Sall Ndiéguène sunu sëriñ bu baax boobu sunu xarit sunu wëlëre te ñaan ko képp ku seetaan lii yàlla na nga dem màkka yàlla bu la dem màkka ump ñu koy ñaanal moom it soxna Ndey Bintu Puy yàlla na dem téeméeri at yu tàmbali ren waaye yàlla na ko yàlla sàmm yàlla aar ko dolli ko suturaak xewal kaala gi yàlla na ràpp ak jàmm képp koo xam ne tamit yaa ngi seetaan RTT TV ñu lay ñaanal yàlla bu la yoonu màkka ump wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.